ñoo ngi dalal tey euh, kii di euh, sëñ bi na Keita di brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite jiite tamit mouvement national des policiers à la retraite fii ci Sénégal tout corps confondu ñu lay nuyu di la dalal waaw soxna si maa ngi lay fay di la jaajëfal ci invitation bi mhm. euh, di wax ni fàttaliku bi ñu fàttaliku mooy fanweeri at ak juróom bi ñu dàqee 1987 bi ñu Abdou Diouf jëlee murid ba dàq Mhm. suba daal le treize ak le quatorze lañ ko ñu fas yéene célébré bu soobee yàlla. d'accord euh, ah. nga baax na ci nga leexal ko waxtaan bi euh, ñu koy amal jamono ji ah. nga xam ne yéen a ngi fàttaliku euh, policiers yooyu ñu rajee woon tey justement date yi boo ca tollee nan lay mel ci yow. waaw dama ni wax ni soxna si radiation bi dàq bi laay wax sax dàq bi ñu dàq. concerné wul rek dañu six mille six cent soixante cinq policiers dañoo xëy suba ñu dàq treize et quatorze li ko waral yomb na Abdou Diouf moo doon euh, njiitu réew mi euh, waa banque mondiale ak FMI na ko fonctionnaire yi nekk Sénégal dañoo bëri il faut ñu wàññi leen mu commencé def départ volontaire am ñu nangu di dem jox leen tuuti ñu dem départ volontaire ñu dem ba xam ne kenn dematul mu des lu mat euh, mille et quelques war a dem moo xamul nu muy def nag mu ne ah, ah mu dem mu jéem wuti douane ba mu demee douane ba douane ne ko boo laalee kenn bu soobee yàlla dootuñu bokk parti la ci budget bi mu deltu ginnaaw collègue bi fi noonu nag am ñu dooleel ko lool mu ne bàyyil ma affaire bi en main nu mu demee mooy Baba Ndiaye benn bëyu boo xam ni da war bijoutier di leen dóor ay bal di dàkku seen alal euh, plainte yi bëri surtout urbaine ñu jàpp ko quinze jours après ñu jàpp ko defeere ko mu dem euh, kaso ba gaañu ñu ni police dañ ko gaa malgré tout mu wax médecin bi mu ni amul xol bi moo wa beneen bi ñu dem acté ñooñu quatre-vingt-deux la wax de acté leen def non lieu quatre-vingt-deux quatre-vingt-sept Abdou Diouf nag bëgg nag conté contenté waa FMI ci loolu ñu ko santaane dem na eh, ba douane ñu menacé ko daw mu ne nag police ñu daal di waxaat justice bi procureur na indiwaat affaire Baba Ndiaye loo xam ne classé am na nool lieu loolu moo tax élément commissariat central bu Dakar dox ñaxtu euh, quelque élément bu euh, GMI dox ñaxtu ak bu bu njaareem wax ndax ñëpp la pourquoi ñu jël ñëpp dugal leen ci biir guute gi te defuñu dara mooy wax ji voilà la situation donc tey ñu xamal ne ñu defuñu dara dara dara Abdou Diouf nag la mu def daf ko def rek ngir kontaanal ñoo xam ne tey jii dëkk yooyu ñu nekk muy États-Unis li France ak feneen ñem ngu leen wax ne dàq leen seen alkaati li tax wax mu koy nangu moom waaw. nga wax ko ah. trente cinq ans après mooy fanweeri fa euh, fanweeri at ak euh, juróom ah. gannaaw mhm. boobu euh, tey lan ngeen mën a wax ci li nga xam ne yéen a ngi ko doon ñaax pour ñu rétablir leen ci seeni droit ndax li ni mel gouvernement wala njiitu réew gi fi nekk tey wuy si na leen waaw damay sant dañuy sant Macky Sall parce que sant bi ñu koy sant moo di bu ko neexoon du ko def waaw bu ko neexoon du ko def parce que mille deux cent bi ñu bi ñu demee ba toog euh, am nañu dellu si ci ñun man ca yàlla def na ci laa bokk mais mille deux cent soixante cinq toog nañu juróom-ñaari at ñu daje leen complètement Macky tey bi mu ñëwee ci jënd na deux milliards jox leen ko ñu indemniser leen euh, ku ci ne am tous loo jot ba pare ñu compléter sa salaire kooku dañ koy jaajëfal ci loolu xar nga xar kanamu police changé na ko def na loo xam ne vraiment ñu dañ ko ci sant bu baax a baax a baax tey bu ñu fonkee alkaat wala ñu kii ko vraiment dafa nekk lu dekk li ci métti lu mooy di Abdou Diouf ak jegeñaayam def nañ loo xam ne parce que Cheikh Sadbou Ndiaye moo doon commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle moo yoroon directeur de la sécurité publique mooy yoroon aar doomu aadama yëpp moo am responsabilité bu dégg ba cëkk alkaati dem aar doomu aadama yi ñoom benn dimanche dafa génn ak soxnaam war a dem dem mu duggi weeru koor la taseel ba mu demee ba mu ba muy waaj a dem dugg ci otoom téléphone am sonné présidence bi woo ko na ko ñëwal wuy si nguur bi njiitu réew mi dafa la soxla ak ñe ñu waxtaane eh, dàq bi waaw comme que ñu xool ba xam nuñ koy ngëm a réglé alors mu wax ko jabar jabar ñu ne ko bon comme yóbbul sa oto man mu jël taxi moom mu jël otoom dem soxla si lu méttee ngi noonu yegg wuyu ji ba mu wuyu jee eh, génnul ak bakkan dañ ko fetal dóor ko ñetti bal ci bopp mu dee ñu dugal ko ci otoom jox ñu dawal ko ba ci marché palais du chou mu yàgg ba mujj bu bële ñu mm. puusu oto bi pour mu daanoo lakk yàlla def xeer téye ko benn mbokkam moo ko romb frèram gis ko ñu génn ko ñetti bal ci bopp mais ko crime a ngi na c'est un crime ba léegi kenn waxu ci kenn kiwu ci te ñëpp xam nañ ko xaruwul de parce que xaru lañ bëggoon ba lakkee yàlla def na feeñ na parce que jullit bu wóor a wóor la kooku noonu demee doomam di nga xam ne koro bañ ko sangee ba di ko waar suuli ñeen ñoon ñun dagal délégué woon ñu ñëw pour ne dañu fekk ñi di moo leen dàq ne su kenn naa porter plainte mu at mi bak ci at boobu ñu yóbbu ko Sorbonne ba muy génn la xootuma kër xam na li nu mu demee donc tey euh, maa ngi woote di ñaan yàlla di woo ñëpp nag alkaati bu retraité alkaati bu retraité wul ñekk en activité góor jigéen famille yëpp bu treize et quatorze ku ci yow na nga toog benn minute de silence boo xam boo wax ak kenn ñaanale ko Cheikh Sadbou Ndiaye parce que ku ko mérité la tey jii tey franchement bu dul fekkoon ne dëkk nguur bi day doxal yoon tey ñooñu xam nañu kan dañu war a mener une enquête pour xam éclaircir la situation parce que boobu ba léegi benn enquête amul kenn xamul nu mu demee kenn ba léegi xam na ni da lañ ko rey te loolu rek lañ ci xam loolu la waaw. ko ah. euh, ci euh, bés yi nga xam ne tamit yéen a ngi fàttaleku euh, li nga xam ne moom mooy datu radiation yi waaye ndax dafa am ay événement wala ay activités yi nga xam ne mouvement bi dina ko amal ngir màggal mbir mi. waaw loolu sunu sunu bëggeel la sunu bëggeel lu ñu bëgg la parce que yàlla dafa ne doomu aadama ñu jullit lañu chrétiens yi ñu ngi ci biir ak ñëpp ñun bëggoon tey jii mu ñu def événement bu wax wàcceel ko kaamil mais na xëy na sunu loxo jaxul foofu li ma mën moo di bind naa bataaxal bu rëy boo xam ne juróomi page la juróomi page laa ko bind lépp laa ci biir dama ko wax amul lu ma ci nëbb adresse ko président la maa ko yóbbu courrier bataaxal boobu jox naa ci benn ministre de l'intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome jox naa ci benn Bokar Seydou Diack bi commandé police de jox ci benn son adjoint jox ci benn ki nekk DSP ñëpp xamal leen nag ne ñun duñ ko fàtte bi ilaa yow mi dini te ñoom dañu lañu war lañu leen lo war dañ ko def parce que wax naa leen ci benn bi may bi ma leen di ndukk doole njukkal sax ci message bi ma li yónni i weeru koor yi naa leen ni bu kenn fàtte ñu toog une minute de silence ñu déggee ko Cheikh bu Ndiaye parce que nag vraiment lu ko jar la parce que kilifa la woon xam ne wan na boppam ne moom daf doon kilifa newul ci buróom toog dafa ñu doon défendre parce que xamoon ne dàq bi du yoon teguñu ko fenn te ña ko def dañu defoon rek pour contenter FMI banque mondiale mu dem ba ñu jël ci bakkanam la kooku war nañ ko di ko fu ñu toll euh, en tout cas ñun daal ñu ngi dellu di jaale. Xadi Njaay di dellu jaar ay doomam parce que sii di dem na ñaar yu jigéen ak ñu góor ñëw ak kenn ku góor ka fa def donc ni xam ne ñun duñ ko fàtte te fas yéene at bu jot dañ ko fàttaliku dañ fàttaliku Cheikh bu Ndiaye xamal ni nit ñi ñun daal defuñu dara au contraire ñoo ci gën a parce que tey soxna si max na ni demoon nañ ba mujj gi booy dox ci mbedd mi ay saaga nan lay def ak ay menaces demoon nañ ba mujj gi Euh, kër gi si ay soxna ñëw dana ñëw ñaan ay baat kër gi demoon nañ ba mujj gi suñuy doom jàngeetuñu dematuñ parce que mënu ñu leen fayal donc tortaande lañ ñu teg boo xam ni ba ilaa mi diin duñ ko fàtte demoon nañ ba mujj gi ay autorité fii ci dëkk bi dem nañ am na ñoo xam sax du ma tudd xam naa leen toog nañ ba di nañ ñooñ dañ leen war a dóor ay fetal am na ñoo xam dañ wax tekkiwuñu dara ñu ne nangam naa ak ñu bëree bëri am na ñoo xam dem nañ ba wax ne nañ leen dàq définitivement ñu jël ñu jël ay ay ay yeneen nit ñoo xam dañ leen di remplacer waaye nag tey bu ñu del sa yàlla moo ko def te xam nañ ni li li jur dàq boobu moo di tey ji lu méttee métti la parce que insécurité bi ñu am dund dund nii agression yi ak lépp ci la juddoo loolu ma xamal ko tey nit ñi waaw. yaa ngi koy wax sànq. famille bi doom ji moo menacé woon ne day porter plainte mais mu jéegul en tout yéen ñi nga xam ne tey euh, yéen gisoon ngeen taxawaay bi mu leen taxaw woon lan moo waral intenté wu leen euh, benn action euh, judiciaire. waaw ngir am lu leer ci mbir mi. waaw mais soxna si calculel quatre vingt sept la affaire bi am quatre vingt sept ñu boom ko bañ ko boomee kañ la Abdou Diouf génn ci nguur gi deux mille calculel quatre vingt sept ak deux at la waaw ki nga xam ne def lu na ñaaw loolu nga ni da koy porter plainte ndax plainte bi dana dem ndax dinañ ko dañ ko wax ñooñu da waroon wax te moom waa bu ku bëggul mu ku def lu ku def lu du ñaaw koy bëggoo mu leer ku def lu ñaaw bëggoo mu leer kon que tey nu mu demee wa ñu jëw ba mu demee deux mille Abdoulaye Wade moo fi ñëw boobu waxu ci yàq tënku ci waxu ci dara dafa ni pataal rek moom dama wax ne Macky Sall rek moo am courage ak personnalité yëkkati deux milliards jox ko ñi nga xam ne toog nañu juróom-ñaari at toog ñu toroxal leen amuñu lu lekk ñu naan ñu defu xëy ñu gontuñu waaw donc loolu ñun dañ ko ciy remercier di ko sant xar kanam këris bu arka changé tey Macky Sall li ñuy nekk tey ñu xool ñu tey Macky Sall la du keneen ku dul moom waxuma ko pour tagg ko mais dama ko wax pour réellement loolu mu am li ma gis la bu amoon du ma ko en tout cas daal Serigne Abdoul Aziz Dabakh Malick radiyallahu taala anhu am na lu mu ñu waxoon la mu waxoon ne moom la ne na dañ leen a tooñ te métier boo xam métier bu baax la fonk leen ko bu baax incha allah métier bu ta bu ta bu yàlla taamu la te képp ku ci waxoon mbaa nga jëf ko waa nga jëf ci ñaaw ji balaa ngaa dee gis ko te gis nañ lépp waaw. tey euh, ñu waxtaan ak yow te duñu àddu ci actualité bi euh, parce que ancien brigadier nga euh, xam nga li ne ci police nga gis tey police bëri na li ñuy ñi liggéeyam bu yàggul ñoo ngi dégg ay activistes yu amaloon benn manifestation bañ ca bañ leen bàyyee dañ leen jàpp ku ci nekk ñu yóbbu la ba bërëb sànni la fa waaye ña leen ko def ñoo ngi encagulé woon. tey ban commentaire ngay def ci mbir moomu. waaw commentaire bi ma ci def moo di bu fekkee ni loolu ñu wax am na ne dañ leen a jàpp te du job yoon te yaakaar naa ne jàpp bi yoon la. parce que dañ doon manifester te autorisé wuñ ko donc jàpp moom yoon la lu war a am la. dañ woon ah. bi. beneen lañ leen jox bu wuteeg ñoom biñ ca. waaw mais c'est normal parce que état moom moo a jaar foofu. Hmm. parce que citoyen sénégalais bi boo bëggee ëllëg yow mi xam da ngay wut nguur wala nga koy wut nguur ngay sàkku nguur dara. Eh, da nguur la nguur santaane war nga koy def di jaar parce que ëllëg yow boo faloo ba da nga bëgg a santaane ñu defal la loolu boo fa nag di fi bu santee nga Guy Marius Sagna man contre ma def de il libre parce que activiste la mais nag na bàyyi saaga yi muy saaga alkaati ak wax ju bon ju leen di wax ñun newuñu fi pour terroriser newuñu fi pour rey nit newuñu fi pour def lu bon dañuy def ñu liggéey dañu la sécurité personnes et bien parce que man du ma nangu mekk man du ma nangu sama doom génn ci mbedd mi ñu koy ñu wala keneen wala ku ma déggal donc nit ki bu fekkee da am nga doole wala am nga daa euh, dis que du yoon bu fekkee dafa am parce que man fekkuma mënuma jugé loolu dafa am mais nag na bàyyi loolu mais dégg naa ko korog aussi mu naan Macky na alkaati yi parce que am ñu solde ba nekk nekk école de police nekk élève bu xamoon lu muy fay du wax loolu muy wax parce que quand il parle de quatre-vingt-dix mille francs day wax lu ko neex rek donc nañu jox cër bi ñu a jox ñun parce que dañoo jox cër doomu aadama yi ku dul juum nag sa métier amul parce que métier yëpp fi nekk ñett yëpp am na ñoo xam ne parfois yéen journaliste da ngeen génne kàddu yoo xam ne nit ñi dañ tax ñu génne ko donc partout am na ñuy juum juum waxuma ne ñëpp a baax nag am na alkaat yu jub ak yu dëngul ak yu kon par conséquent loolu la ñun daal li ñu soxal te jii moo di ñu ngi woo appel ne képp ku sénégalais jullit di chrétien ak foo munti féete na nga fàttaliku Cheikh Sadbou Ndiaye nga def une minute de silence di wax ma Sall it na xaa na fàttaliku njabootam googu muy Khady Ndiaye na leen xool te lu mu leen mën a dimbali mu dimbali leen c'est extrêmement important di xamal Khady Ndiaye aussi ne ñun de en tant que mouvement at bu jot incha allah bu at bu ñëwee le treize et le quatorze la fàttaliku Cheikh Sadou Ndiaye incha ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi euh, Cheikhna Keita di brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite merci beaucoup madame et yal na yàlla def jàmm seen euh, rajo boobu ci barke Seydina Mohamed merci beaucoup